auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim gannaaw ma sant yàlla julli ci bi sant sama ñaari way jur maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di balu àq ñëpp ah li ma laaj mën naa cee tontu sawar naa ci tontu ci ndax góor gi wax dëgg yàlla sama nijaay la mook sama yaay ñoo bokk baay am na lu ma xam ci moom ku yiw la woon ku bëggoon njaboot la ku ñeme njaboot la ku bëggoon mbokk la waaw jaamukatu yàlla la jànkatu alxuraan la taalibe Seex Ahmed Tijaan ak xan la Ndaw waaw soppoon kër Seydi Alaaji Omar Ndaw lool waaw xamante ak ñoom Seydi Alaaji Muntaxa mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa Seydi Alaaji Omar Ndaw kooku moom moom daanaka ay doomi ndey lañu ku baax la woon li ma ci li ma mën a wax daal góor gi gaal ku baax la woon waaw loolu am na lu ñu ci mën a wax tuuti ndax moom kër Seydi El Hadji Omar la jokk woon amante woon na ak këru yëpp ndax moom fépp képp ku baax rek amante na ak yow waaye nag kër Seydi El Hadji Omar Ndao la jokk woon waaw mu nekkoon muqaddam ci Seydi El Hadji ndaw bu mag a mag bu ñëpp xam bu ñëpp ràññeewoon waaw eh, ca jamono ku daan dimbalante ak Seydi Alaaji Omar Ndaw la bi mu làqoo mu laxasoog si Alaaji Muntaxa moom moom ba yàlla dogal lim dogal waaw ku ñemewoon njaboot la daal ku bëggoon mbokk la waaw sama diggante njabootam gi ndax relation wax dëgg yàlla euh, sant ci yàlla ndax dañ na bàyyi man ma a nijaay ma ne yaay ñu ne bàjjan te suñu way jur yi yàlla fa leen boole woon ñu àndoon nekkoon benn amuñoon benn différence waaw daan deflante lu baax daan deflante lu baax loolu nag yàlla dogal na feeñ ci suma diggante ak njabootam gi wax dëgg yàlla am ak ñoom benn xaaxaam yàlla jàmm laa am ci ñoom ak salaam saa bu ma fi bàyyee ko yàkkamte naa fee dellusiwaat pour lii nii barki démb alxames ci guddi la ma sirif saaxu oo wax ma ko ne ma seen dañ koy defal ñaan samedi bu neexee yàlla ma na ko ah loolu jàmp na de ba gannaaw suba la ma mën ma waaw waaye nag dañoo bëgg fépp fu mbokk nekk boo mën a ñëw na nga ñëw ma ne ko bu neexee yàlla góor gi jaral na ma ko sama yaram mi dinaa ñëw incha allah yàlla dogal na nag ñëw man naa ñëw ñëw naa waaw. mu ngi génn euh, mille cinq defe naa bu ma jumal la 5 mois de août wala la 7 mois de août 2005 la génn jamono. ci waxtu waxtu waxtu bii la on sax boobu yàlla nawet baa ngi waaw léegi li may tàggatoo rek mooy sant yàlla gërëm yàlla di ñaanal nag boroom kër gi yàlla defal ko càmm barab bi yàlla samp ko xaar ko xaar képp ku fi nekk dara jaal lépp loo xam daal nit a ko fee yootu ci lu neex yàlla te xam na kii fi lu naqar yàlla kon daal li ñuy ñaan moo yal yàlla saxal ko samp ko xaar ko xaar leen xaar képp ku fi nekk barke